salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañ leen yéen ñëpp ku ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey jii euh, 22 octobre 2024 ci wàllu tàggat yaram deuxième vidéo d' abord képp koo xam ne ni abonné goo suñu chaîne YouTube bu ko tàyyi bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager mu ngi noonu ne baax Barça at ak kooke di Atlético Madrid dinañ ci ñëw. nu ko gars yi gisee ak lan lañ ci fas yéene euh, def mu ngi noon noonu ngeen xamee ko noonu mais balaa dara s'il vous plaît euh, képp koo xam ne nag abonné goo suma chaîne YouTube bul ko di taay del abonné yi di liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir euh, bu baax a baax a baax Neymar nag ñëpp xam nañ ne dikkaat na euh, ci football da après ay ati at amanaan après ay ati at après ay mois mois jotul football daanaka on peut dire at footballul actuellement nag ñëwaat na waaye ñëw rek commencé def ay petit pont moom daal dafa ñàkk jom daal nan lañ ko fee nar a blessé waat moom daal mu ngi noonu daal mais kooku di Rafael Leao sax célébré na retour kooku di Neymar mu doon retour bu neex a neex a neex genre yi ni mel dañ leen bëgg di gis ay artistes football li ci manqué jamono ji lanu namm li taxoon ñu bëggoon football jamono ji moo commencé manqué des artistes ay créateurs genre Ronaldinho Neymar Paul ba ay Zilinho. ay okocha di créer ay action yoo xam ne nii di oser dépasser say limites mais jouru jamono ji ñu toll nii nouvelle génération bi ñoom maanaam daa mel ni xaalis rek lañ dugal ci nag li ñu leen laaj jox comme absentinelle ñu ne ko defal premier sort de balle récupération et passer à autre Euh, numéro 8 bi ñu ne ko yow daal defal link entre 6 beeg 10 bi ah, di def say transversal ah parfois buñ buñ buñ buñ tëjee 6 bi yow nga euh, def ta déplacé wu ci côté ci ci côté L bi recevoir bal bi euh, wala nga ñëw jël si bal bi yóbbu. génération bi actuellement ils sont très très très très dañ leen laaj ak la joxe te loolu ah, rek taxul ñu naan football football au niveau dafay laaj yoo xam ne nii ay créateur ah vraiment comme Neymar. namoon nañ ko ci biir terrain gis ko action yi mu daan def Vinicius sax mu ngi koy jéem a euh, imiter di jéem a def yi ni mel euh, on sent que ni mu ngi ciy góorgóorlu mais ba tey gisaguñu un Neymar 100 pour cent ci talent ci technique non mais ci vista ci ci ci ci ci ci oh là là oh, oh, oh que il a il a détruit sa carrière sa carrière jël ay ballon d'or kon ne di fi nekk malgré son âge comme ni ko Messi nekk fi woon ak Ronaldo mais euh, vraiment c'est c'est c'est c'est c'est c'est désolant c'est c'est triste de voir Neymar ci beneen niveau vraiment vraiment vraiment mu ngi noonu gars yi kooku ah, di Juventus de Turin a décidé de recruter Francisco Cancelo di doomu Cancelo mi nekk foofee ca mën naa ni Milan euh, Juventus nag dafa décidé recruter ko définitivement la valeur du transfert sera de trent 34 millions d'euros euh, mu ngi doon la l'attaquant portugais et euh, pour l'instant prêté par le FC Porto moo ko jamono ji Juventus de Turin mais daal actuellement kooku ñu naan ko mën naa ni Juve dafa jël des jënd ko définitivement ngeen xamee ko noonu Harry Maguire nag attend le licenciement directé nag avant de prendre une décision euh, quant sa quant à sa euh, son départ mu ngi noonee de Manchester United ay nag day xaar ñu dàq Eric nag pour xool ba xam day toog man yu wala dafay dem jóge Manchester United kooke ñu naan ko euh, mën naa ni Harry Maguire xam naa ni seen diggante jotul neex mu ngi noonee Sofiane Rakhimi nag moom nag dafa nekk forme jeux olympiques yi dépp ba mu commencé toj mu ngi continuer di toj bu baax a baax a baax foog moom triple la laal euh, lors de la défaite de Al Hilal contre kooku ñu naan ko Al bu ñoom euh, Neymar Al Hilal mu ngi noonee euh, trois bii la jot a dugal toujours en forme le marocain moomee nag ku jar a bàyyi xel la ñu ngi xaar la suite nu ngi di nar demee ak nan la naka la lépp lu ci mënti am. di ngeen ci jot ci njekk ak teranga mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu kookee ñu naan ko mën naa ni ah, Marwan Al Shafi ah, moomee nag a marqué un doublé euh, pour euh, Beerschot contre kookee ñu naan ko RCC euh, Anderlecht mu ngi noone ses premiers buts en Jupiter Pro League le joueur de vingt ans est prêté par al Ittihad gone googee nag jamono ji waa Arabie Saoudite daal en tout cas dañoo fas yéene jël seen joueurs yi aale leen fii ci Europe pour ñuy mën di performer nekk au niveau bu defee ñu waajal seen coupe du monde bi ñu war a organiser la Guinée. ak la Puma scandale problème moo fa am Puma attaque la fédération guinéenne qui aurait fabriqué de faux maillots pour ses équipes Guinée nag dafa fabriqué jënd ay maillots yu faux jox équipe nationale am loole nag ba Puma yëgee loolu te mooy Puma la ba Puma yëgee loolu dañ leen fas yéene porter plainte ce scandale serait avant tout euh, une question d'argent problème mu xaalis la des intermédiaires de la fédération guinéenne de football auraient tenté de percevoir des commissions sur l'accord euh, entre Puma et la fédération devant euh, l'absence de résultats favorables la fédération guinéenne de football mu ngi noonu aurait décidé de produire des maillots contrefaits en attendant vraiment c'est triste pour l'Afrique du ñu respecté xaw ma kañ la ñu respecté li ni ba nga demee ba xam ne ne ndeysaan mënatoo continuer ak piment collaboration bi jarul nga koy jéem a njuuj njaaj demal nga ut beneen sponsor boo xam ne yéen yéen tolloo ngeen niveau vraiment c'est triste de voir ça en Afrique suñu fédération yi moom Afrique dañuy rusloo rek fédération sama fédération ak fédération keneen a ci am suñu dirigeant yi maanaam ñoom xaalis ak nguur daraja jaral nañ lu ne ba tax sax jaay ngooru population yi Oh, c' est vraiment trice c' est vrai vraiment triste lii moom daal xam naa ni di ko xool nii sama xool du ci neex sama xool da ciy dagg lii ni mel mu koy gis en Afrique te du dàkk mukk da nga koy kaaj à chaque fois mbiri di gën di continuer xaw ma nag kañ la mbiri di jeex ci problème yi ni mel c' est vraiment triste quoi c' est vrai vraiment trice yi ni mel c' est vraiment triste ah. le match sax euh, ak kooku di Atlético Madrid mën naa ni euh, dañuy euh, waa Liga ñu ngi réfléchir a euh, délocalisé le choc Barça kooku di Atlético Madrid foofe ca fan Inter Miami le 21 décembre bii di ñëw mu ngi noone may xaar ci commentaire est-ce que loolu ànd ngeen ci ou pas en tout cas choc bu nar a metti nar a yëngu tegu ci temps mais gars yi daal ñu ngi xool ba xam duñ ko yóbbu euh, foofee ca Inter de euh, Miami pour ñu mën koo footballer foofe xanaa peut-être Messi dina présent ci match bi ni mel en tout cas dina doon match bu neex metti yëngu tegu ci temps mu ngi noone gars yi ngeen xamee ko noonu looloo nekkoon xibaar. xibaar euh, jëmee ci bisub tey ji 22 octobre 2024 ci wàllu tàggat yaram d' abord képp koo xam ne nag s'il vous plaît abonné ko suñu chaîne YouTube balaa ngaa dem bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir ci xibaar yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox matin midi soir en tout cas ñun amuñu seen fay gis nañ seen i soutien yéen a ngi présent depuis le début à la fin ba léegi jeexagul yéen a ngi ne di présent di ñu soutenir bu baax a baax kon nag yàlla seen jàmm yàgg kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax a jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à